Euh, fële ci Diacksao 2 waaye fii itam ci Almadi 2 ah, ak tam yeneen yoo xam ne ay projet la yoo xam ne mu ngi ci suñ kanam incha allah yàlla dafa doon am xale yoo xam ne dañ fee mokkal alquran comme niñ ko baaxoo nag at bu nekk xale yu fi mokkal alquran ñu defal leen benn cérémonie de remise euh, sargal leen loolu moo waraloon bés bi waaye yàlla dogal tam ñu am benn projet boo xam ne. projet bu mag la pour tabax benn complexe islamique fële ca Gorom 2 ñu woote woon jullit ñi pour présenter projet boobu waaye itam euh, leeral ko ci seeni i gët ak seen nopp ba ñu yóbbu xam si lépp loo xam ne rek jaadoon nañu ko ci projet boobu waaw complexe bi dafa am ay branches yu bari parce que am na maanaam si euh, maanaam étude boo xamante ni franco arab lay doon li ko commencé ci préscolaire ba. terminal euh, am na tam euh, beneen branche boo xam ne euh, daara lay doon daara alquran mais daara alquran boo xam ne tam daara moderne lay doon xam ne xale yi dañ jàng alquran ba mokkal ko comme niñ koy defee fii ci institution bi di Daaru Rahman ci Almadi waaye tam en même temps di jàng français aussi itam di jàng arab xale yi fi génne daal suñuy génn ñenn ñi dañuy mokkal alquranul karim ba pare am seen CFEE ak entrée en sixième option franco arab loolu nag mooy ñi nga xam ne dañoo dalee ci daara ji mais ñi dalee woon feneen wala nekkoon ci école daan jàng français ba yàlla dogal ñu ñëw ci daara ji tardivement ñu suñu mokkale alxuraan la plupart day fekk euh, seen niveau euh, français mooy jiitu seen niveau arabe suñu def examen dañuy def option français mais euh, arab bi dañ koy def comme langue rek. léegi nag fële dañ koo bëgg a gën a yaatal ba nga xam ne xale yi nga xam ne dañuy jàng fii ci institut bi waaye suñu amee CFEE wala ñu am entrée en sixième dañ leen di yóbbu ci yeneen école yoo xam ne après suivi bi day des ñu bëgg nag euh, xale yi nga xam ne ñoo mokkale fii ci daara ji amee fi entrée en sixième amee fi CFEE ñu am suivi boo xamante ni bu dëgër la ak encadrement bu dëgër ba keroog ñu am bac loolu wax dëgg yàlla expérience la boo xam ne def nañu ko tey xale yu fi génnee bëri na si ñoo xam ne ñu ngi France di jàng am na su ñoo xam ne ñu ngi université Cheikh Anta Diop Dakar am na si ñoo xam ne ngi si lycée yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Dakar moo xam ci option français la wala ci option franco arabe tey jii man kenn sama doom yi ci daara ji la génnee te ren lay def bac te série S lay def incha allah parce que bi mu nekk ci daara ji bi ñu ko laajee boo màggee loo bëgg a doon def na dafa bëgg a doon médecin donc loolu nag daara ji gunge ko ci. ba tey ren incha allah mi ngi def bac ñu koy ñaanal yàlla defal ko ndam kon loolu moo waral xale yi kenn ku ci nekk boo déggee suñ ko laajee ku nekk am wax na li nga xam ne loolu la bëgg a doon daara ji pare na ko accompagner xale yi ci loolu bu bu ëllëgee ñu génne ay bons citoyens ñoo xam ne mën nañoo nekk ay imam mën nañoo nekk ay sëriñ daara mais en même temps tam mën nañoo ñoo xam ne dañuy doxal réew mi di doxal adduna ko ci aussi itam bind nañ inspection daara. bi nga xamante ni moom la ministère dénk lépp lu jëm ci wàllu daara aussi itam bind nañu ministre de l' nationale ci boppam lettre boo xam ne am nañu wóoru ak yaakaar ne jot na ci ndax loxo yi ñu ko teg loxo la yoo xam ne bu yàggul barki démb rek ñu ngi doon liggéey ak ñoom ci projet boo xamante ni mooy projet concours boobu nga xam ne chef de l' état bëgg na ko yëkkati te jàpp naa ne ministre de l' éducation nationale jot na ci inspection des daara tam jot nañu lettre boobu directement te wax dëgg yàlla ñu ngi leen koy fàttali te di leen yégal ne tam projet bi projet la boo xam ne bu ñu koy sampu dañu koy samp pour jàppale leen ci maanaam préparer bu ñu war a préparer bon citoyen bu sénégalais mais aussi tam jàppale leen ci maanaam xëy yi nga xamante ni ndaw moo xam euh, ci domaine bu mu mën a doon ndax dana nekk institution boo xam ne dana employé ñu bëree bëri ci ay jàngalekat ak ci yeneen service yoo xam ne danañu mën a servir foofu di fa mën a for li nga xamante ni mooy seen wërsëg. waaw app bi de bu fekkee suñu bëgg-bëgg euh, app bi mooy jàpp nañ yaakaar nañ ci yàlla tey ñaan lu mu gàtt gàtt lu mu lu mu gudd gudd kon at ba ñaari at ah, lépp sotti. loolu am nañ ci yaakaar te di ci di ci sabab lu di ko dox ndax ñi ci war a jokkool ci kilifay diine jokkoo nañ ci ak ñoom ñi ci war a jokkoo ci njiital réew mi jokkoo nañ ci ak ñoom aussi itam eh, ñu ngi ciy def yeneen i pexe ndax am na plateforme bu ñu créé boo xamante ni képp koo xam ne bëgg na cee participer dana mën a jaar si plateforme boobu parti participer moo ak fu mu mën a nekk ci àdduna bi moo xam ci Wave la moo xam ci Orange Money la moo xam ci compte banque la moo xam mboolem moyen de transfert yi nga xamante ni am na képp koo xam ne bëgg na participer rek su jaa su jaaree foofu dana mën a joxe participation maa ngi euh, fàttali itam ne képp koo xam ne def na daaru tiire rahman point comme dana gis page bi nga xamante ni mooy page web bu institut daaru rahman foofu dana fa fekk. Euh, yoon yi nga xam ne fa la mën a jaar ba joxe ba mën a joxe participation ci projet boobu te teewul tam suñu lii lancement la woon waaye buñ si jógee ko danañu sol suñu daal nag kilifa yi nga xam ne war nañoo mën a waxtaan ak ñoom bali lii sotti ñu waxtaan ak ñoom waaye tam ñëpp ñoo xam ne war nañ leen a bind tàllal leen loxo tam ci biir réew mi ak ci bitim réew dañ leen bind tàllal leen suñu loxo. ànd ak ñoom ba projet bi taxaw ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala am nañu ay stratégie yu bëri yoo xam ne ñu ngi kanam yu war a def pour réaliser projet bi incha allah waaw message message bi nga xam ne daara ji daf koy joxe ci loolu mooy euh, borom bi subhaanahu wa taala daf ñu wax ci alquran ne wa qulu linnaasi xusna na ngeen wax ci nit ñi loo xam ne lu rafet la yonent bi sallallahu alayhi wa ne wax nañu Euh, maanaam képp koo xam ne nar naa wax ci yéen na wax jàmm wala mu noppi fal yaqul xayran aw li yasmut képp koo xam ne nar naa wax si yéen na wax loo xamante ni jàmm la na wax loo xam ne yiw la wala mu noppi ndax euh, euh, maanaam ab ab réew dafa am lu koy doxal te loolu di ko doxal ñaar rek la mooy xam-xam ak ay jikko xam ak ay jikko ndax xam-xam bi lu mu bare bare bare te jikko yi jagul du tax réew mi dox waaye jikko yi lu mu rafet rafet rafet te xam-xam bi nga xam ne ci la ñu mën a sukkandiku ba doxal réew mi tam amul réew mi du dox kon dañuy woo ndaw ñëpp ci ñaar yooyu ci ñu góorgóorlu ci sàkku xam-xam ak xam-xam bu mu mënti ki doon moo xam xam-xamu diine la moo xam xam àdduna moo xam xam technologie la ak lu mu mënti ki doon ndaxte lislaam diina la joo xam ne ni ko borom subhanahu wa taala waxee ci alquran ne maa faratna fil kitaabi min shay benn borom benn benn benn weddikat dafa ñëw ci imaam abi xanifata rahimahullahu taala ne ko da nga ne seen diina ji bàyyiwul dara damaa bëgg nga wax ma sama gaal gi sama bato bi nga xam ne moom laay liggéey ci géej gi fan la ko seen alquran ji tudd yàlla na ko walla abu xanifa ne ko yàlla nee na wallahu xalaqakum wa ma taamaluun yàlla moo leen bind waaye yàlla moo bind itam li nga xam ne moom moom ngeen di def kon ka gaal googu yéen ngeen a ko créé te yàlla moo leen créé créé li nga xam ne moom ngeen di def kon loolu day wane ne l'islam diine la joo xam ne dafa soññee jëm ci xam-xam te su ngeen dégloo tey message bi nga xam ne xale yi lancé nañ ko mooy nee nañu yonent bi euh, sallallahu alayhi wa sallam aaya bi yàlla njëkk wàcce wàccee ci moom mooy daf koo sant mu jàng waaye mu jàng lan bismi rabbika alladi xalaq xalaqal insaana min alaq ci turu yàlla mi nga xam ne moo bind doomu aadama waaye bind ko ci lumbu deret euh, loola lu sori la loo xamante ni tey yonent bi alayhi salaatu wasalaam mënul woon a yegg ci xam fi yàlla bindee doomu aadama su dul woon yàlla moo ko wax loolu waaye li euh, euh, lislaam tam diina la joo xam ne day woo ndaw ñu ci ñu liggéey su ngeen dégloo message su xale yi tey jàng nañu ñaari xadis benn bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn garab wala benn grain picc lekk si wala rab lekk ci wala nit lekk si lu dul loolu nekk na sarax ci ñoom waaye déggaat nañ beneen xadis bu gën a doy waar ci wax xale yi tey te loolu ñëpp war nañu ko bàyyi xel mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na law qaamati saatu wa fi yadi ahadikum fasila fa in istataa an yagrisaha fal yagrisaha su aduna doo tukki nga yor jëmbatu garabu tàndarma boo xam ne dan nga koo naroon a jëmbat soo mënee profité ba balaa àdduna di tukki nga jëmbat ko na nga ko jëmbat xam nga loolu tàndarma googu du fi nekk ba nga koy lekk du fi nekk ma ngi koy jariñoo waaye daf lay soññ ci ne bépp occasion boo am pour def dara loo xam ne lu baax la rek fexeel ba occasion boobu bum la rate kon daal ñi ngi woon ndaw ñëpp ci jàng ci gëstu waaye ñi ngi woon ndaw ñëpp tam ci jikko ju rafet ak tam maanaam respect ak worma ak dund ci dund goo xamante ni day nekk ci jàmm ak salaam lii daal mooy lépp solo ci message bu daara ji bëggoon a lancer Serigne Ndiouga waaw presse bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal ci seen taxawaay bu rafet boo xam ne wax dëgg yàlla wees na sunu njort ndax euh, programme bi gis nañu ni mu débordé ci wàllu temps bi loolu yëpp day ware nag ne programme bi moo doo dayoom moo toll foofu waaye ak loolu yëpp taxul ñu xaddi euh, taxul ñu ñaxtu taxul ñu def dara waaye ñoo ngi toog di def seen liggéey jël mboolem éléments yi nga xam ne gis nañ ne dafa am solo ñu jël ko pour war koo génne kon daal ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal di leen wax ne amuñu seen fay te di leen wax tam beneen yoon ne bëgg nañ lool ci seen taxawaay bii ndaxte bëriwaana bu dara xewee ci daara loo xam ne euh, safaan la ñu tas ko jox ko ampleur boo xamante ni wax dëgg yàlla bu xewoon feneen fu dul daara donte baaxul fenn duñ ko jox ampleur boobu. waaye su fekkee ne yéen yéen a ngi xëy fii suba ba léegi di sonn ngir lan wane taar wane ak mbaax wane li nga xamante ni mooy génne ci daara te nekk ak te nekk loo xam ne njariñ la ci diine ji nekk loo xam ne njariñ la ci société bi kon vraiment wax dëgg yàlla ñu leen di wax gàcce ngalaama di leen di jaajëfal lu baax di rafetlu taxawaay bu baax ndaxte su ñenn ñii di liggéey ngir fësal li nga xamante ni mooy safaan ñii di ñii itam ñeneen ñee war nañoo liggéey nag